Cheikh euh, balaa ñuy dugg ci waxtaan yi opposant ak politique ñu ngi la xamee ci TikTok Cheikh kañ nga commencé TikTok ak kañ nga jël initiative ne yow Macky ngay défendre ba àdduna xam la ci. TikTok maa ngi ko tàmbalee presque deux mille vingt deux mille vingt deux. deux mille vingt deux laa ko tàmbalee boobu coowal Adji Sarr Ousmane ñëw na. waaw boobu la d'accord. Mhm. ci nga commencé TikTok ci laa ci laa commencé TikTok bañ ci doog a dugg nag jàppee woon ne ndax àdduna ñaari nit sax danañu xam. Mhm. dañ dañ ciy duggee ak yéene ak gëm-gëm ndax dañ naan wàññi boo gis boo tàmbalee ci benn mhm. mën na dem ba àgg téeméer mhm. waaw loolu rek la te TikTok nag wax dëgg yàlla mu rëccuñu dugg guñ ci dugg mhm. amaana ñu ngi ciy jànkoonte talof talof yu ne waaye rëccuñu dugg biñ ci dugg ndax amaana bu toon TikTok doo ma xam kon te képp ku baax rek maa ngi euh, TikTok a tax maa ngi xamante moom. Mhm. kon rëccu man dugg bi ma dugg ci TikTok. dëgg la mhm. d'accord donc yaakaar naa ne leer na te bi ngay dugg TikTok objectif bi lan la woon da nga dugg pour juste faux wala da nga dugg ni man damay défendre que Macky sal parce que gis nañ leen Cheikh Macky nga tukkee sa bopp. Mhm. Euh, dama dugg ngir défendre son excellence président de la république Macky Sall. ndax 2022 presque xeex bi wéetoon na ci trop. gisul benn sën boo xam ne. mu ngi engagé wu ngir wax ci moom lu baax. ndax président Macky Sall. képp ko xool lu baaxam da nga ko gis. képp ko xool lu bonam da nga ko gis fii àdduna la. nit ñi comme ñu ñun nit simple rek. seex boo bëggee xam ba xam seex baax na boo xoolee ci seex ak baax da nga gis baaxuk seex. mais boo xoolee ci ak bonuk seex da gis bonuk seex ndax bon rek nga xool ci moom. loolu moo tax ñu engage wu ñu ne ah première video bi ñu njëkk a def TikTok defuñ ko sax ngir politique. appel comédie lañ defoon. Mhm. vidéo bi jàll ñu bari si ay ay ay ñu bari si suivre ay 800000 personnes euh, seetaan ko. Mhm. vidéo bi jàll. Mhm. mais bi ñu demee ba xam ne politique bi kat. am nañ ci wàll te buñ doon wax sax ñaari nit dinañu diglu. ndax buñ ci duggee léegi yàggut yàgg na. presque deux mille vingt deux mille fin deux mille vingt deux lañ ci dugg. te ñu ci sant yàlla bu baax a baax. macha mm-hmm. donc nga dugg ci TikTok Sénégal xam la ci xam la ci defendre président Macky Sall ñu jóge ci ay élections Cheikh nga nekkoon ci combat élection bi. Mm-hmm. Cheikh da nga jotoon finance ci combat élection bi wala parce que Cheikh gis nañu ne yi da ko koo yénu woon Cheikh. waaw laaj boobu nag neex na ma lool. Mm-hmm. ndax ñu bari dañoo réeree mbir ci suñ jëmm yi. ñun dañoo bëgg rek te yàlla tax. Mhm. jotuñ financement waaye ñoo jot financement juróomi dërëm nit joxuñu ko ngir ñuy topp ki ñuy ki son excellence président de la république boole woon muy Amadou Ba. Cheikh kenn fayu la. non non. dañ doon demal maa sama oto. Mhm. Amadou Ba parce que bëri na dëkk dem naa dem naa dem Louga dem dem dem euh, Kaolack dem bi daanaka tournée yi mu def yëpp amul ma ci demut. Mhm. ci suñu mayoon bopp ak bëgg-bëgg xam ne ki ñu booleen moom bu ñu joxoñal bu ñu joxoñoon aw daal sax na jàpp leen ko ñu jàpp ko mm-hmm. ndax doyoom muy son excellence président de la république mm-hmm. di ko ñaanal waaw man mooy sama président. président non waaw non non non chef sénégalais nga tey <laughs> fu nekk nii son excellence c'est monsieur Diomaye Faye. waaw xam nga man taxaw naa ne président de de la mm-hmm. mais dafa am baat boo xam dama kaa tàmm muy son excellence président Macky Sall daa nekk sama xol. te loolu. président Diomaye Faye ndamam suñu ndam la ñaanal naa ko sànq di ko ñaanal yàlla ndam nag yombut maa ngi koy ñaanal mam ndam mhm. waaw di di li gën a métti ci ci ci ci campagne bi mhm. mooy dañ ñaan seex dañ laa fay dañ laa financé seex ñi leen jox cinquante mille ñi leen jox cent mille francs te barki alxuraanu karim billaahi wallaahi taala nit joxuñu dërëm nit joxuñu virgule doomu aadama nag réew mi ñu nekk di Sénégal boo defee ñu wax boo deful ñu wax kuñ gis nga yokk ci benn mbir ñu yaakaar ne mbir ma nga nekk moo tax nga yokk waaye fa lillaahi hamdu yàlla xam na lépp te ñun de ñu ngi sant son excellence président sàll Sall. Mm. ancien président du Sénégal. Mm. mën nañ kaa waxee noonu. effectivement ndax daa tax képp ku ku ñu xamutoon xam ñu. Mm-hmm. daa tax képp ku bëgg lu baax bëgguñu ndax am na kilifa yu bari ñu ñuy xam ñenn ñi fu ñu gisee. di diñu diñu diñu di ñu di di diñu diñuy jox suñu wàccuwaay da ngay gis ñoo xam ne dañ lay defal teraanga ngir président Macky Sall da ngay gis ñoo xam dañuy yëkkati seen xaalis di la ko may ngir président Macky Sall defuñ ko ngir yaaka sàkku mais dañoo gis ne kii kat xale la jeune la mu ngi ñeewante di wax ci président wala muy jàpp président te defee ko ngir intérêt ko ngir xaalis ñooñu ñoo yëkkati sa xaalis di la ko jox kon président Macky Sall man jàpp naa ne képp koo xam ne sénégalais nga war nga kaa sant gërëm ko ndax nag loo loo bañ lëg-lëg boo ko gisee xam ne mën naa daw te gudd nay nopp waaw mais campagne yi moom wax dëgg yàlla mu jotuñ financement waaye ñoo jotu financement ndax bu ñu jotoon financement tamit dañ koy wax mm-hmm. ndax président président Amadou Ba ñu ngi koy ñaanal tamit fi mu toll mooy chef de l'opposition. Hmm. waaw ndax moo jël deuxième. ndax moo jël deuxième te mm-hmm. gisuñ ko fi man ci jikko ju rafet ci baax ci dal ci teey ci te daa nekk ñun dañoo nekk opposition yoo xam ne. dañuy rafetal duñ saaga duñ taal duñ yàq te xam ne ñoo bokk Sénégal dañuy wan ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk taal yàq taxut ab dëkk defaru taal yàq taxut ab dëkk baax saaga wax lu bon su euh, toroxal ay kilifa diine du tax ab dëkk jag liy jagalub dëkk mooy ñu ànd bokk ndey bokk baay juma président de la république Diomaye Faye mhm. bu amee ndam ndamu Sénégal gépp la ndamu seex mi la président de la république Diomaye bu amee gàcce gàcce gàcce ñëpp la mhm. gàcce sénégalais yëpp la mhm. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ñu ngi ñaanal nag chef de l'opposition président Amadou Ba mu ngi màkka di def omra mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam yàlla defal ko jàmb ba mu dikk nag seere opposition bi bu baax a baax a baax a baax ndax combat bi mu ngi doog tàmbali te ñun opposition yu neex lañ lañ am waaw gouvernement bi dañu nga xam ne mosuñoo nekk opposition d'accord ah. dina ñëw ci opposition bi. Mm. mais Cheikh ñu dégg ci say biir wax nga ne mu ñëw mosoo jot cent francs donte ñu lay saaga donte des fois nga jot ay menaces ñu saaga say waajur. Mm. loolu noo koy dundee Cheikh te nga xam ni dara fekku la ci cent francs fekku la ci lu dul comme ni nga ko waxee ay nit yoo xamante ne gis nañ la doy nga leen ñu lay may xaalis ci ak ak yelleef loo xamante ne bëgg nañ ñoom it président Macky Sall. waaw menace moom daanaka chaque jour ma jot ko. oui man dama lay ma jot ko chaque jour avant ma ñëw fi rek jot naa ko. Mm-hmm. mais bu dee bëgg président de la taxaw di wax ci président de la lu baax crime la. Mm-hmm. man de bu ci buñ ma ci reyee sax bu mm-hmm. buñ ma ci tëjee kaso garaawut xam nga tax. Mm-hmm. chaque jour ma dégg ñaar ay seex arrêtal vidéo yi ngay def wala ñu la tëj kaso man leen ñun amaana yow ba nga may sifur. kenn mës na gis ma di ko saaga ndey. ñun jombale nañ suñu bopp ñi diglu la ñuy bàyyi xel. ñi nga xam ne ñu ngi ñuy ñu ngi ñuy ay kilifa dañuy diglu ay maara ay lu ne dañuy diglu. ay borom daraja ku ne dañuy diglu ci réew mii mhm. kon bu ñu demee bay nekk ci tiktok bi di wax jombale lañ suñu bopp di saaga wala ñuy wax lu bon ñi nga xam ne nag dañuy dañuy menacé dañuy naan ay yooyu noonu lijjantiwuñu ko ndax bañ ci dalee mu nekk ba léegi mosuñ cee am ak nit problème barki alxuraan ko ba ma dalee défendre son excellence président de la république Macky Sall benn yoon laa ci xeex muy démb. dina ci xeex bi ndax suivre naa la nga koy wax. Mhm. Mhm. kon ñi nga xam ne ñooy menace. damaa ñàkk ne leen li gàtt xel la ndax fii gis nañ fi ku taxaw wax lu ne président Macky Sall président Macky Sall jur na rek lañ ko waxat ci réew mi di Sénégal te ñi ko daan def dañ leen encouragé ñi ko daan def dañ leen dañ dañ leen yéen a fi nekk lu bon lu ne wax nañ ko président kon nag ñun bu ñu amee ñeewante ak jooyante ak bëgg-bëgg di wax ci président Macky Sall lu baax war nañu kaa mën a nangul war nañoo xam ne kii kat bëgg la am te waxuñ seen leader lu ñu waxul président Macky Sall leader bu fii leader bu tax nga saaga nit wala ngay tax ngay menacer nit leader boobu wax na président Macky Sall lu gën a raw loolu kon ñi nga xam ne dañuy menacer bu ñu dalal seen seen xel na xam ne lu dul yàlla la mm-hmm. te jàlla jalaaluhu rek lañu yaakaar wa asakamalahu lim naan li yàlla du diisu du tàggu kenn ci coobarey boppam day jëfe ci lu ne mm-hmm. ak kàttanam ak xam-xam ak sañ-sañam kon jàpp naa ne lépp la ci ñun ci la waaw te teewu nag ñu ngi ñu ngi bàyyi xel def attention di xam fi ñu dem di xam ñi jëflanteel ndax doomu aadama matut te gàllankoor yu bari na. Mhm. te boo nekkee ci réseau yi ñaari nit xam la lu la am na si ñoo xam ne chaque jour ñu ngi xool lu ñu lay toroxalee. Mhm. chaque jour xool lu ñuy wëññee su sutura. waaw kon nag ñu bàyyi xel bu baax lool. Mhm. mais ñi nga xam ne daal ñu ñu ñooy menacé ngir ñàkk fara ak ñoom dama bëgg ñoo xam ne seex mii di wax ak ñoom seen rakk la seen xarit la. ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk lu ñu mënta séddoo muy Sénégal gii. am naa droit far fu ma neex fi ma neex mooy président Macky Sall képp ko koo xam ne boole na ma ak moom wala mu ne mu ne ma ànd ñu continuer liggéey di wane lu président Macky Sall def ci réew mi ba tey mhm. dama cay nekk mhm. kon ñun président Macky Sall la ñuy àndal moom la ñuy jàppale moom la ñu mën de jaam ak pexe yàlla ak dogal mhm. waaye chef opposition ci TikTok bi moom maa ko bëgg a nekk hmm. ndax lu baax lañ bëgg di wax ñeneen ñi dafa bëri ñoo xam ne dañuy diglu di ree ñeneen ñi diglu seen xol sedd damay ree man ñeneen ñi dañuy diglu seen stress de am na ñoo xam bu ñu bëggee reetaan seex la ñuy diglu mm-hmm. kon léegi loolu ay menaces wala ay saaga ay dinañ la tëj yooyu dina tax ma bàyyi ko maa ngi doog a tàmbali mm-hmm. xarit yi soppe yi am na jàmm yéen ñi demaan seetaan maa ngi doog a tàmbali TikTok ndax combat continuer te combat bi mu ngi doog a door mm-hmm. d' accord donc Cheikh nga nekkoon ci euh, TikTok bi parce que man résultat yi ba ma fi jugee zéro heure ñibbi. Mhm. maa ngi la doon topp pour déglu résultat yi nga doon joxe Cheikh foo doon jëlee résultat yooyu. <laughs> yi ñu bari moom la. parce que man résultat yooyu ma bu ñu ma nee na Amadou Ba day def euh, déclaration zéro heure jàpp une ma maa ngi ca Cheikh. xam nga après ci laay wut sa <laughs> mhm. sa numéro <laughs> ma ko jot ci guddi gi. Mhm. résultat yi man ak Adamo ñu bokkoon seen. yow Adamo bos ñoo ñoo bokkoon ñoo bokkoon fenn fi ñu koy jëlee. résultats am na. ndax résultats yi ma doon génne di wax yëpp yu am la waaye gañ bi moo metti président jumaa yi dañoo du duma yu metti billaahi non jumaa yi damaa yaakaaroon sax ay jinne dañoo mujj di ko wateel non billaahi président Jumaay damaa yaakaar ay jinne dañoo mujj di ko wat xam nga semaine bee passé ba dee diglu <laughs> non seetu dem doon ngeen dégg may wax naan président Amadou Ba bu ko bu ko bu ko nit ñi wateelu jinne yeeg malaaka yi wateel ko mais dafa mel ne affaire dafa mel ne daa këpp ci jumaay <laughs> jumaay la mujj nit ñi yeeg malaaka kay ku ne day wateel jumaay surtout ment suñu dëkk bi nag suñ waa dëkk bi moom Touba ñoo jël ndam li foofu moom dama yaakaar sax dañoo yaakaar na màggal Touba daa jot ba ñu mujj di sot <laughs> kon daal résultat yi ñu doon jox am na waaye defit bay metti te ndam li ndam li ndam li ndam li daal daal jumaay jumaay jumaay yàlla ko sama àq daal jumaay président jumaay yàlla ko sama àq daal ndax ay résultat dix mille laa doon indi six mille <laughs> yow kat man kat man damaa toog man dama toog mm. sëñ ne ma doo tëdd ma ne ko déet ba ma suivre Cheikh mm. may suivre Cheikh mm. di dégg ay ay ay ay yoo xamante ne man je me suis dit que non Amadou Ba day gagné <laughs> premier tour mais xam nga chiffres yi am na mais nu ñu koy waxte sax euh, nguur moom yàlla moo koy joxe dëgg la te président de la république Diomaye Faye mm. dëgg yàlla mérito na gañ ci benn côté mm.